salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yu ñu seetaan fii ci Medina TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey ñu amaan mbégte ak contentement lool jàkkaarloog fii suñu papa suñu suñu euh, mu doon un homme de référence waaw nit ku naturel macha allah nit ku yàlla baaxal muy Pape Demba Lam balaa may tàmbale nag dama koy bàyyi mu nuyoo ba pare grand Pape maa ngi lay nuyu di la ziar. waaye maa ngi nuyu euh, Medina TV waa Medina TV day yuuxul ma yuuxul sa bopp gën a gaaw ndax man Medina laa dëkk. Medina TV mooy sunu tele ñun kon nag Medina TV fay naa leen. macha allah loolu neex na xol lool neex neex na si xol lool du moins grand pape balaa ñuy balaa ñuy dugg ci waxtaan bi barki démb dañ fiy dëkkmal benn omage boo xam dañ la ko dëkkmal sax du moins muy Sorano mu doon benn guddi gu mag guddi bu réussir. ci ci ci ci hommage. loo xam ne nii dafa dafa tiis si xol yi lool. mun nga ñu ñëwal ci loolu tuuti. waaw gis nga ko de defe naa loolu ñun ñëpp ko gisandoo vraiment euh, remercier naa waa Médina yëpp remercier suma ay mbokk remercier suma ay kilifa ndax ñëw nañu ànd ak man ci bés bi gunge ma sargal Abdoulaye Koundoul muy lu rafet lu rëy ci man yéen tamit waa Médina TV ñëw ngeen gunge si ma loolu rëy na trop ci man te yéen gis ngeen ne foofu keroog euh, vraiment neexoon na. Mhm. neexoon na trop sax macha allah grand pap mhm. ñu commencé dugg ci waxtaan bi tuuti. Mhm. kóllëre bi nga bi nga bi nga jëloon ci thème boobu. waaw ñu gis ne jamono ji euh, violence bi dafa bëri trop. est-ce que waa Médina delloo nañ kóllëre Médina bi ñu dëkk. waa Médina am nañu delloo kóllëre waaye am na ñu delloowul kóllëre. Eh, sama grand ngoog <laughs> eh, Moussa Pape Demba oh, sow sow sow jaajëfal sow sow sow félicité jërëjëf ci guddi gii ñu génn nii mhm. ngir Médina mhm. ñoo la ameel njukkal mhm. doon la sargal yow tamit nga woññeeku di sargal directeur Sorano Abdoulaye Koundoul ak maire Euh, euh, ak chef euh, de quartier délégué de quartier bi mu nekk réussite bu rëy rëy rëy boo xam ni kenn dootu ko fàtte di si yokk que ni <laughs> Médina amee nañ la njukkal bu rëy <laughs> bu dee ci wàllu théâtre bi <laughs> kenn waxatu ko waaye bu bu ñu fàtte ni ci sport nga ak jëkkee jàmbur yàlla ba ci kusum ah dëgg jikko ji ak caractère bi nga xam ne ni moom nga doon inculpé xale yi ba sa sëpp ak say jarbaat nekk ci fulla ak fayda merci bi nga xam ni moom nga defoon ci sa jarbaat muy Ibou Diop nekkoon capitaine nu kusum kusum billaahi kenn ñamuñul kusum kenn yabul kusum billaahi dégg nga oh, ba ñu jékki-jékki di way wayu traditionnel <laughs> ah, ah, o are jooni o are jooni kër ga toj waaw kaaw jóge fële dugal bi bi <laughs> xuma way merci jërëjëf <laughs> jërëjëf yàlla merci Seck Cissé moo doon entraîneur bi billaahi waaw da bu ñu fàtte ñoom ca RV allahu akbar ñoom longtemps allahu akbar ñëpp mhm. jàmbur yàlla gis nga montre yëpp gis nga grand montre yëpp bokk benn heure parce que yéen a ngi wax kóllëre xool ko moom li moo fi yëpp kóllëre la waaw nañ sàmm kóllëre ndax lii sàmm kóllëre la kii moom ak suma mag ñoo bokkoon benn classe defandoo yëpp jaar fu bañ na ko ba caatam moom la ko tuddee ah, xam nga ni lii lu rëy la kóllëre la kii école Médine ku fu mu sa jàngee xam nga papam xam nga référence bu ñu doon ñoom ci école Médine Moussa Sow lii yàllaa la indi toogal toogal te eh, abal ma baal grand dañ doon wax ci kóllëre nga gën ma indil kóllëre ndax kóllëre dafa wóor ci doomu aadama nit ki balaa ñuy xam kóllëreem dëgg mu gore moo tax pièce boobu ma def ko dama xool almer yi mu mu néew ñu fay ziar lool lool lool mu doon loo xam ni du référence mu dool loo xam ni jaaxal na ma moo tax ma indi pièce woowu mais bi ma indee pièce boobu ah wéetuma ci ah wéetuma ci wéetuma ci xale bi nag dafa am lu ma laaj lu am importance nee na ma xale yi léegi est-ce que ñu ngi euh, euh, euh, topp kóllëre ndax violence yi am. Mhm. loolu nga wax walla waxoo loolu. waaw waaw violence yi am yi am ñun de ñii xamuñu ko. ndax kii école Médine la dëkkoon. Mhm. ñëw Riz 3 di dogal Riz ba man doon suma kilifa. kon nga xam ne kon ñun de li ñu war ñu ngi koy def. Mhm. violence bi am bu du football football ngay wax wala politique wala lan ngay wax. ci côté ci côté politique bi. ah côté politique ah, mooy li xew waaw parce que daanaka dëgmal nañ am campagne yi te ñu ngi toll si trois jours te gis nañ lu fi jot a xew barki démb. waaw mais barki démb man sama pièce bi mais ñoom ñu bu ñu ñëwoon seetaan ko ha ah, yow kon kon dinañ xam ne xeex ya xuloo yi taxul kenn gañe ndax pièce bi li muy rëy rëy rëb indi naa kóllëre mhm. indi naa lépp mais wax naa ci pièce bi mhm. wala yow seetaanoo ko seetaan naa ah kon ñii dañ ko seetaanoon mhm. mais buñ ko seetaanoon buñ ko seetaanoon tey kon duñu kon duñu xuloo ñu xeex mais nag ku nekk di nga far fu euh, di nga far fi la neex ah parce que dañu ne euh, euh, mbir mi dafa ñaaw parce que tur yi tur yi rek dafa màgg turu euh, parti yëpp a màgg ay Benno Bokk Yaakaar ay Dekkal Ngor ay lii ay lii mais vraiment ku ciy jël tur rek tur de référence ngay jël. Mhm. ay Medina si xol. waaw waaw. Medina si xol. Benno ko Yaakaar Dekkal Yaakaar. xam nga yooyu yëpp ay tur yoo xam ne yu màgg la. Mhm. ni ko tuddee tur woowu xam nañ ko mais ñi leen di topp seen sympathisants yi est-ce que xam nañ ko. déedéet. sama gis waaw xamuñu ko parce que aljamaatu ma la mbooloo man yërmande yàlla. Mhm. mbooloo ma gis de yàlla la. mais naka la ñuy utee mbooloo ba pare grand bugg di xuloo di xeex mais grand man loolu laa contre ku nekk faral fi la neex ka nekk ak neex jam cooco. Mhm. jam cooco ka nekk ak neex ka nekk faral kala neex. Mhm. mais teewul bu ñu xuloo bu ñu xeex ndax man parti tud kenn tuddu ci xuloo. kenn tudd ci xeex kenn tudd ci violence te ñu koy def tur yu màgg la ñuy tudd. Mhm. man loolu daf ma étonné daf ma jaaxal. mais nag euh, grand wax ji wax ji dañ ko war a wax te dee gis nga euh, ah, mbir a ngi nii ku ko moytu rek xam booy bi papaam anecdote laa lay jox booy bi dafa ànd ak papaam gis ku ponkal torop torop torop mu ne ko waa papa kii de moo mun ñëpp. papaam ne ko kii mënul ñëpp de am na ku ko mën mu ne ko kan moo ko mën mu ne ko nelaw muy bi tamit am intelligence ne ko waa papa lu mën nelaw mu ne ko soxla soxla ku ko am du nelaw doo nelaw mu ne waa papa lu mën soxla mu ne ko mbokk soxla nu mu day day day loo bëgg bëgg bëgg bëgg say mbokk suñu dajaloo rek jàppale la mooy lii ndeysaan mooy parti yi lu ñu bëgg-bëgg ñoom ñëpp am soxla gañe hmm. ñoom ñëpp bëgg a gagné mais ku ci bëgg gañe gagné ku ne di nga ànd ak sa mbokk xanaa. mais ki xañ xuloo eh, ki ñëw di indi xuloo di indi xeex mu ngi lay xañ mbokk ndax loolu tàggale mbokk la. ah la tàggale mbokk la. te grand lii metti na ma metti boo xam ni yàlla rek ko xam gaañ nañ doon doomu Médina bañ doon dolli Médina ndax loo ëpp loo dolli nu ne bu ëppee tuuru. Hmm. bu ëppee tuuru te àdduna jaru ko. lii yëpp dafay jeex ngeen àndaat ndax Medina ñoo ko bokk de ñoo ko moom de te paa yi fi nekk booy Medina lañ leen di wax. Mhm. ndax booy Medina Medina am na plus de cent ans. voilà dëgg la am na plus de cent ans. kii mooy sunu kilifa mais suma ko koy wax booy Medina mun naa ne ko booy Medina. Mhm. mais su ma koy wax entre man ak moom mun naa ne ko papa. mais su ma koy wax mun naa ne ko booy Medina parce que nangu na ko. waa Moussa. yow suma kilifa nga. vraiment lii su ma ko waxul. Ah du am njëriñ parce que buy balaa jëriñ toj nga baal ma wax ak mbooloo mi daal ñu dellu siwaat daal ndax yéen Médina da ngeen ko yoroon yor bu rafeta rafeta rafeta rafet ndax ñun référence lañu woon ku xooloon euh, ci bële passé Seydou Gueye ak Bamba romb nañu xulowuñu xeexuñu euh, tooñante mais ñëpp jël référence ci ñun ñëpp di ko wax koo wax mu naan Médina de ñoom de seen leader yi de benn lañu xool leen nu ñu rombante te teewul ku nekk su euh, su euh, gañee jo euh, su vote dote ku nekk far fi nga neex far fi nga far fi nga war a far mais woy woowu est-ce que ah entre Cheikh Ba entre Bamba war na mun a yàqu waru mun a yàqu parce que Cheikh ak Cheikh Ba ak bamb bu fekkee dañuy woote vrai Médina te ay Médine waa lañu nañ waxante dëgg parce que ñoom xuloo wuñ fi xeexuñu fi mais jàmbur yi ñi ànd ak ñoom ñooy xuloo ñooy xeex nañ leen woo wax ak ñoom délégué de quartier yi jóg ñëpp jóg Médina ñoom mënuñu ko yàq. mënuñu ko yàq. ndax police ndax commissaire bu am fulla ngi fi ah. ku fi def loo war def rek mu defee ren ah. Mhm, mooy commissaire Sow. bu am fulla nu mu tudd. commissaire Sow. comme commissaire Sow ku am mhm. fulla la. parce que gis naa li man demuma de mais dégg naa réaction yi mu def ñun ku mel ni euh, ku mel noonu la soxla ku nar a yàq Médina ku ne ah commissaire Sow a ngi fi ah. merci. grand jërëjëf. di sama doomu Baye. waaw li Pape wax dama ci dellu si ngir Médina fii musuñu xam xuloo musuñu xam xasante musuñu xam xeex mhm. àndandoo la ñu xamoon ndax rakk daana topp mag mag topp ndijaayam jarbaat topp ndijaayam euh, sët topp maamam mhm. looloo fii ak amoon ba mag ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon gisoon nañ fi ku si mel ni Adja Aram Dieng gisoon nañ fi Seynabou Gueye Ndaté gisoon nañ fi Moussogui Ba gisoon nañ fi docteur Samba Gueye waaye Henri Senghor Doudou Ndiaye Rose Wee Fay xeex musul am xulo musul am Abdou Karim Gueye man mii di wax ak yéen ci Moussa Sow maa ngi juddoo ci biir école Médine ca digg ba sama papa moo nekkoon ca gardien ba foofu. macha allah waaw. kon. macha allah loolu fii lañ ko fekkoon te fii lañ ko war a bàyyi. Mhm. ngal la xale yi xuloo bi xeex bi amul njariñ dem leen ngeen jëli seen i carte téye bu bés ba ngeen dugg ci urne yi ngeen xool ku leen neex ku leen soob ngeen sànnil ko seeni i jóg dem ñibbi kër ga. bu leen indi ak ak njàqare seen i ndey bu leen indil njàqare seen i baay bu leen indil njàqare ñun ñi nga xam ni ñoo fi nekk léegi ay mag nekk seen i maam. macha allah li leen artistes yi di wax toppaleen ci Pape Demba ngi leen di yee Lamine Ndiaye ngi leen di yee ñeena ñeen ñu ngi leen di yee. Mhm. artistes yëpp ñu ngi yeete. waaw que ce muy musique foo mëne yaa ngi wax boo nekkee ci théâtre yaa ngi wax boo nekkee ci sport bi yaa ngi wax mhm. kon xale yi man Moussa Sow maa ngi leen di wax nii xuloo bi ak xeex bi jaru ko fi dañu joxante loxo bokk ndey bokk baay wasalaam. macha allah jërëjëf. ñoom dañ xeex kat mhm. gis nga bu ñu doon xeexkat. bilaay dinañ bàyyi xeex. man Medina kenn dàqu ma woon xeex. kenn dàqu fi woon xeex. xeexkat laa woon. mais tey xam naa ne xeex xeex amul njëriñ ba ma yaroo ah delloo waami naa seen cër gis nga niñ ma def keroog bër bërki démb. Mhm. barki démb teraanga bu ne am naa ko. le grand hommage barki démb yë yëguma dara lu dul lu neex barki démb sargal sargal nañ ma sargal goo xam ni mi dinaa ko fi dëkk ku ne boo gisee lii rek war nga mun a changer. Mhm. bu fekkee ne yaa ngi ci yoon bu dëng. dolli Medina yi nag ñu ngi fi commissaire baa ngi fi rek di faj. macha allah grand daanaka message bi ngeen envoyé léegi léegi am na solo nga xam ne képp ku ko seetaan dina si am njàngat boo xam ne nii mën na si jàng mais papa dafa am benn question bi leen bëggoon posé mooy que ne fan ngeen gis ne lan mooy source problème bi vraiment ak aussi il n'y la violence physique mais aussi il y la violence verbale violence morale loolu noonu yëpp ñëwal ñu ci loolu. waaw mais violence physique jaay ku bu amee fulla jënd ko violence verbale koo ko wax ku ne mu tontu parce que xasit rek la koo fi xas ku ne mu xas la. wala. Mhm. Ah? Mhm. parce que am est-ce que jar na ko. déedéet. xas sa bopp jaru ko. Medina il a combien de temps euh, euh, il a combien combien de temps combien de euh, combien d'âge presque cent ans kon Medina ñi mu jur bari nañu boo xeexeek waa Caaro yi wala nga xeex ak waa waa waa waa jàmm gën yi wala nga xeex ak waa Medina mais xeex nga ak sa bopp ndax foo dem di nga fa gis d'origine médinoise d'origine Medina. Mhm. foo dugg fii di nga fi gis euh, euh, euh, waa Médina kon waa Médina ku fi xeex rek xeexal nga sa bopp ku fi xas xas nga sa bopp nag ku bàyyi nag sa ay mbokk foo dem fekk fa sa ay fekk ñu téye seeni i mbokk. Mhm. violence verbale bi loolu rek la violence bi rek la di wax loo xam ni ay sos la di wax loo xam ni ngeen baal ma ay fen la te koo fenal ku ne bu la bàyyi la yàlla du baax de. ku ci yaakaar ne xuloo xeex wala fen mooy tax nga gañe fii ñun dofuñu de kenn mënuñu naxa ah intelligence moo ñu moo ñuy moom la ñuy voteel bopp la ñuy voteel ak ku bëgg Médina ak ki intérêt Médina tax a jóg mais xeex yi dafa mel ni comme intérêt intérêt personnel la waaw ku fi xeex nag wala di xuloo ba ñu xàmmee la billahi wallahi taalahi doo gañe te waa Médina duñ la voteel di ñëw di wax ni lépp li si ëpp ñàkk xam sa bopp ci la puisque boo xamee sa bopp fonk sa bopp fonk sa askan doo xaste doo saaga doo xuloo doo xeex ci lu baax rek ngay dëkk lu baax rek ngay wax loolu la ñu yore woon waa Médina loolu nag dafay mu ngi nekk ci tendance su disparaître mais dinañ ko indiwaat ci kàttanu yàlla xale yi di am orma. ci mag ñi. li reeroon dina feeñaat ci kàttanu yàlla ndax artistes yaa ngi. incha allah dawuñu reculé wuñu. waaw lépp dinañ ko delloowaat ci fi mu jóge woon. muy ngor muy jom muy sutura. Mm-hmm. muy teraanga muy diine mu la lépp wasalaam. jërëjëf ma lay xamal ne la. Mm-hmm. gis nga violence verbale beeg euh, physique beeg yëpp ñu ngi koy faj ñu ngi koy faj de ñu ngi koy faj ñu ngi koy faj yow journaliste nga gis nga barki dee mboo njaay ba mu amee. Mm-hmm. Ah, seen ay morom policier ñoo am ful day faay day faj ko ah fii ku fi degene rek gars yi teg la ci bi. booy bu fi degene rek di jaay dolli Medina dañu lay teg ci raay bi te man bu dolli Medina bu ma gis ah muy degene moo woo police ñu teg la ci raay. waaw oh, papa lan mooy dolli Medina. dolli Medina lu ñu loo dolli lu ne lan la bu ëppee day tuuru wala. Uh-huh. xam nga mun nga juddoo ci kër. Uh-huh. doo bokk ak principe waa kër ga. doo bokk ak principe waa kër ga mun nga fi dëkk mun nga fi ñëw gan bokk ak principe waa Medina. Mm-hmm. mun nga fi ñëw euh, mun nga fi mun nga fi dëkk. doon dolli dolli mooy lu ñuy tere lu ne yow danga koy def amoo jom amoo luy ruus amoo di xaste koo koy dolli xam nga doomu mi naa lu muy def mhm. ful la fayda ngor comme lu ko Youssou Ndour waxee Youssou Ndour bu woyee rek yow mi dëkk Medina billaahi di nga ci gis sa bopp barke alxuraanu karim du ay parparloo du ay li non non Youssou Ndour boo ko xamee nii rek la mais musique am ah bu ma ko déggee dama ciy tiitaru ndax li mu wax ci Medina moo am. macha allah papa dafa am beneen affaire boo xam ne. te am nga morceau Medina am nga morceau Medina bu Youssou booy booy booy montali na nga ko ci teg. incha allah waa Medina xamaat seen bopp delluwaat euh, delluwaat cosaan en ah, grand waaw. émission bee ngi noonu loolu neex na trop dafa am benn affaire boo xam ne nag dama bëgg ñu yokk si parce que. lépp loo gis day doxuñu ci nit nit boo gis am na loo xam ne mi ngi ci moom maanaam lu ñu naan moralité nga xam lu baax ak lu bon moom aussi lu ñu naan la caractère inhumain jàkkaarloog sa nit sa moroomu nit surtout ñu doon ay waa Médina nga xam ne jàppal ma jàpp la woon léegi da ngay gis doomu Médina jàkkaarloo doomu Médina di saagante ak moom di xeex ak moom ba deret di si tuuru papa ñëwal ñu ci caractère inhumain yooyu noonu nga xam ne maanaam lu dafa dafa doxuñu ci wàllu moralité xam lu baax ak lu bon. ñooñu est-ce que doomu Médina lañu on se pose la question ñooñu duñu doomu Médina ay dolli dinaa lañu. mooy ñëwaat ba léegi. waaw mooy ñëwaat ba léegi. wala man kii suma kilifa la ki mu doon àndal ci kër gi fii gaañu na génn na àdduna. Mm-hmm. ba cër amee dama ko ko jox te mi nga dëkk ba wakaam nekk fi ma voilà mm-hmm. wow woowu ma ko yow woowoo ko mm-hmm. daf fi daje ñëw tombe fi ñëw dëgg la kon xam nga ne kii bu fekkee ne doomu Medina la xam nga kii kuy xuloo ko xeex du kii ma ne kuy xuloo ko xeex ci man du man ndax am na yar goo xam ne moom wa moom jox na ma ko moom mm-hmm. war mun a yaru voilà kon yow tu me parles de Dolly Medina pas de doomu mit naa yow tam wala gara moom gis na cër bi bi ma ñëwee nuyoo asalaamaaleykum sama rakk jàngi dafa jóg ci siis bi mu toogoon wàcc toog ci bank bi te su fi bank amuloon ci suuf la jëm bàyyi ma ci kaw ma toog kon li fi amoon démb ñu ngi koy wonaat xale yi pour xale yi dellusi si xam seen bopp comme ni ma ko waxe woon li mu la tontu mooy loolu dolli ma Medina yi ñooy ñëw rax ci biir cumukaay li te bu dee ñun ñunu neen rek xamante nañu teraanga bu nekk moo dox suñu diggante ba ñu fi toxu dem France dem Géejawaay dem Caaroy ku fi juddoo rek boo gisee sa morom da koy naw. macha allah ko. Mhm. fóonanteeg moom sargalante ak moom looloo fi am te bu soobee yàlla dina fi dellu si wat incha allah incha allah xam nga li gën a metti ci àddina àddina dee mettiwul feebar bëgg a dee mettiwul yooyu yëpp mettiwul lan moo metti waaw merci dama buggoon nga poser ma question bi nga ne lan nga ne lan moo metti xam nga lan moo gën a metti ci àdduna di dund ci àddina sa lu baax di dee loolu gën a metti ci àddina te ngay dund te loolu nga may wax noonu ñoom seen lu baax mi ngi dee te ñoom moytu jéem a dundal seen lu baax moytu seen jéem a fexe seen lu bon dee mhm. ndax li may wax nii tuur deetu nit jam nit tëdd nelaw ah sa lu baax ngi dee ah, sa lu baax dee na wax lu ñaaw sa lu baax dee na jëfe lu ñaaw sa lu baax dee na am nëbbatu am bokkoo sa lu baax dee na yàlla nañ ci yàlla musal amiin amiin amiin booy dellu siwaat leen jéem leen tàggat seen lu baax moo ëpp solo. ah parce que di dund ci àddina ba pare sa lu baax di dee sa lu bon di dund a ah, yàlla nañ ci yàlla musal. amiin amiin amiin waaw. Ah, appel naa nee naa leen sa lu baax de boo xoolee. ba mu dee te ngay dund jaratoo dara fexeel sa lu baax di dund sa lu bon nag moom ah, nga fexe mu dee loolu rek laa amoon lu may wax wasalaam. sunu papa père man Moussa Sow li may lancé xale yi mooy xoloo bi xeex bi xastante bi jaru ko fi ku nekk na far fi nga far jëli leen carte yi nag denc woote ñibbi sa kër taal sa ataaya bu résultat yi ñëwee ku yàlla wax ni kooku la ñëpp wàññeeku topp ci ginnaaw kooku ànd ak moom jàppale ko te yàlla suñu borom bi rek tax te ki yàlla di jox tamit yàlla na nekk sunu njëglaay mu defaral ñu sunu. amiin ca Médina vraiment besoin. amiin merci bien. amiin merci jërëjëf. amiin merci. waa waa kii TV nu mu tëdd oh TV. Mhm. non yéen a ko yara an sooma an ma jaalo.